ñu dellusiwaat tey ci beneen jataay ak yéen ngir rek gunge ko mbokku internet yi ak ñi koy seetaan ci wàllu koor gi bu ko defee ñu ñaanal ñëpp jàmm ñaan weeru koor bi nga xam ne ci lañu nekk lii nga xam ne moom moo jot a paase te ñu woor ko yàlla na ñu yàlla nangul yëpp waaye li ci des it ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu ñu mottali ko te lépp luñ ci jàmm yàlla nañu ko yàlla nangul ñu tàllal sunuy loxo subhaanahu jëmmale ko ci moom ndax ñaan mooy ngànnaayu jullit te kenn ku nekk xam nga ni jamono ji ñu toll ak mbas mi ni mu mel ci àddina si ba yegg si suñu réew kon jaadu nañu tàllal sunu loxo ñaan ko mu teggil ñu ko moom moom mu nga xam ne nag moo ko indi moom moo ko mën a teggi kon dañu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu teggil ñu ko ci barke weer wi waaye rawatina nag ci barke fukki fan yu mujj yi nga xam ne moom lañu nekk kon nag ñu ñaan ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu jiitu ci ci feebar bi yàlla na yàlla yërëm leen waaye ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo ci tawat te tëdd hôpital ah, ñoom it yal na yàlla fëgg seen yaram bañ dellu seen njaboot waaye ñi nga xam ne ñoom la yàlla def it dalagul leen ñu ñaan yàlla bu mu leen dal kon nag ñu ñaan corona bi yal na ko yàlla jële ci àddina si yal na ko fi yàlla jële ci barke weer wi ci barke alquran bi ñu wàcce ci weer wi waaye ci barke nag fukki fan yu mujj yi nga xam ne ñu ngi ci seenu guddi laylatul qadri mbokk yi alquran ku wax weeru koor wax alquran moo tax dañuy wax ne alquranu mooy téere yàlla bi nga xam ne yàlla nga ko wàccee ci weeru koor ñu ci ñëw mu ne na alqurana ann alqurana yu yuxibu ramadana wa ramadana yuxibu alqurana alkarima fa huma sadiqaani xabibaani dañu ne weeru alquran moom ci boppam dafa bëgg weeru koor weeru koor moom it bëgg alquran kon ñoom ñaar ay ñaari xarit lañ ñu bëggante wa tabarakallahu yàlla subhaanahu wa taala moo wax ne chahru ramadan allazi unzila fi alquranu hudan linnaasi wa bayinaati min kon li muy tekki mooy alquran ci weeru koor lanu ko wàcce kon dina am solo lool cib jullit bu weeru koor ñëwee mu am yitte ci alquran moo xam dafay toog di ko jàng moo xam dafa dem fu ñu koy jàngale moo xam dafay jël rajo sax teg ko di déglu alquran yooyu yëpp bénéfice la ci jullit bu ko defee ñu xam ni alquranul karim yàlla subhaanahu wa mu ngi ko wàccee ci weeru koor comme ni ñu ko waxee ci aaya bi léegi waaye mu waxaat ci beneen aaya tooy inna anzalnaahu fi laylatil qadri yàlla nee na wàcce nañu alquran ci guddi laylatul qadri dana ñëw ci laylatul qadri insha allahu ci kanam waaye mu waxaat ci beneen aaya buy firnde loolu it mooy inna anzalnaahu fii laylatin mubarakatin te mooy wàcc nañ ko ci guddi gu barkeel guddi gu barkeel boobu ne nañ mooy guddi laylatul xadri waaye bu ñu nee wàcc nañ alquran ci yonent bi sallallahu alayhi wa guddi laylatul xadri ñi gàtt xel danañu xaw a wax ne waaw naka la mën a nekkee te mooy yonent bi dañu wax ne alquran wàcc na ci moom lu bëree bëree bari lu mot euh, fukki at ñaar fukki at ak ñett ci yonent bi sallallahu alayhi maanaam bu fekkee ne dañu wax ne alquran wàcc na ci yonent lu mot ñaar fukki at ak ñett kon lan la ñu waxee ne alquran yàlla wàcc na ko ci weeru koor ci yonent bi sallallahu alayhi boo demee ibnu abbas radiallahu anhu dafa wax ne anzala allahu alqurana jumlatan waxidatan min allawxi almaxfuudi ila bayt alizzati min alsamaai dunia suma nazzala mufassalan bi xasabi waqaaihi fi talaatin wa ishrina sannatan ala rasulillahi abbas ibnu abbas dafa wax ni yàlla wàcce na alquran buñ ko doon wax mooy global lañ ko wàccee jëlee ko ci lawxil mahfuz indi ko ci baytul izzati ci asamaan bi ne ci àddina si à partir de foofu nag la yàlla wàccee ci moom ci seyduna muhammad lu mot ñaar fukki at ak ñett ci circonstances yi nga xam ne mooy mooy xew te mooy lu xew rek alquran wàcc wax ceeg yonent bi sallallahu alayhi wa kon li muy tekki mooy alquran alquranul karim li muy tekki mooy alquranul karim selon situation bu yonent bi toll rek jibril ñëw wax ak moom ci situation boobu looloo indi mu wàcc ci ñaar fukki at ak ñett waaye bi ko yàlla di jëlee ci baytul izza eh, baytul lawxil mahfuz di ko wàccee ci baytul izzati loolu mu ngi nekkoon ci guddi laylatul qadri kon bu ko defee ñu xam ni alquran ba mu ñu wàccee ci weeru koor nag kon dafay am solo lool ab jullit yittewoo mën a jàng alquran xool nga jullit lu mu néew néew war nga mën a jàng alquran moo xam lu dalee ci am na ba wàcc wala sabi isma rabbikal ala ba wàcc ndaxit it loo ci jàng lu ne bu yoomal qiyaamee da ngay rëccu ne bu ma xamoon jàng lépp njëriñ bi nga xam ne moo ne ci jàng alquran jëlee nañ ci xadis boo xam ne abi umamata moo ko solo jëlee ko ci sayduna muhammad moo wax ne samitu rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yaati yowma alqiyamati shafian li ahli li ashaabihi rawahu muslim nee na dégg naa ci yonent bi muy wax ni nañeen jàng alqur'an ndax yowmal qiyamati alqur'an dafay ràmm ay ñoñam maanaam alqur'an dina ràmm ñi nga xam ne ñooy jàngkat alquran yi kon loolu li muy tekki mooy ab jullit waan nga am yitte jéem jàng alquran rawatina nag ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi ibnu abbas moo ko wax ci beneen xadis dafa wax ne inna alladi laysa fi jawfihi sheyun min alqurani kal bayti alxaribi nee na ki nga xam ni maanaam biiram dara nekku ci alquran dafa mel ni néeg boo xam ne néeg bu ràpp la kon ab jullit bu dara nekkul ci biiram ci alquran dafa mel ni néeg bu ràpp kon loolu ak tirmisi moo ko moo nettali xadis bi alquran nag am na yool bu bëree bëri bi ci nekk ndax solo nañ ci xadis boo xam ne abdullahi ibnu masudin moo ko solo mu wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaraa xarfan min kitaabillahi fa lahu bihi xasanatun wal xasanatu bi ashari amthaliha laa aqulu alam xarfun walakin alifu xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne képp ku jàng alquran nee na dinga am lu toll ci loo ni li nga jàng ci alquran yool bu toll noonu mu ne nag wal xasanatu yool ba walla lu baax loola bi achari am saaliha dañ koy double lu kem ni la nga xam ne noonu la toll te mooy boo jàngee fukk ñu mbind bi la ko fukk boo jàngee téeméer kasaalik mu ne waaye nag bu may wax jàng alquran du ma ne alam xaraf la damay wax ne alif gi xaraf la laam gi xaraf la miim gi xaraf la te mooy boo jàngee alquran xaraf boo jàng rek yiw lay doon xaraf boo jàng ñu multiplier la ko ci ay yiw ci say jëf kon li muy tekki mooy ab jullit waan nga fexe ngay jàng alquranul karim ndax bu ëllëgee mu bokk ci ñi lay ràmm waaye jàng alquran baax na fu ne waaye fi mu gën a amee solo nag ci weeru promotion bi nga xam ne mooy weeru alquran nga xam ni weer la boo xam ni loo ci def ci yiw dañ la koy multiplier tekki mooy alquran bu weeru koor ñëwee jullit bi war nga def yitte jéema jàng alquran lu mu néew néew kiram jëlee nañ ci xadis boo xam ne ibnu abbas moo ko nettali nee na kaana rasulullahi ajwada naasi wa kaana ajwadu maa yakunu fi ramadana xiina yalqaahu jibrilu wa kaana yalqaahu fi kulli leylatin min ramadan min ramadana fa yudaarisuhu alqur'ana fala rasulullahi ajwadu bilxeyri min arriixi almursalati wa kaana yalqaahu fi kulli leylatin min ramadana fa yudaarisuhu alquraana ibnu abbas dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wa sallam nee na mooy ki nga xam ne moo gën a tabe ci mboolem nit ñi nee na waaye tabeeb yonent bi nag nee na yaa ngi ko doon gën a xam nag bu weeru koor ñëwee nga xam ne jibril day ñëw ak moom ñuy nafaraat alquran kon alquran bu weeru koor ñëwoon jibril day wàcc ci yonent bi ñuy ànd di jàng di nafar alquran booba weer bi di jeex mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def loolu guddi gu nekk bu ñëw di réviser ak moom alquranul karim ci biir weeru koor bi kon lii li muy tekki mooy yonent bi nga xam ne mooy suñu royukaay ndegem moom lañu wàcc ci moom alquran waaye bu weeru koor ñëwee jibril di ñëw di ànd ak moom di nafaraat alquran kon loolu am na njàngat buñ ci war a am moo tax sahabatul kiram ku mel ne Ousmane ibnu Affan moom daana jàng alquran guddi gu nekk dina wàcce kaamil kan yaxtumu alqurana kullu laylatin kulla laylatin min ramadana nee nañ moom guddi gu nekk rek dana ci def xatmul quran beneen bi ci des mooy imam alshafii yu radiallahu anhu moom daana def alquran fi ramadana yaxtimu qur yaxtimu alqurana sittina marratan te mooy moom guddi gu nekk dana ci wàccee alquran maanaam dana jàng kaamil bi mu jeex benn guddi ñaari yoon moo tax mu di ci am juróom benn fukki yoon dana ko wàcce alquran naka noonu imaam Buxaari yi nga xam ni xaafis ibnu xajar moo ko nettali nee na moom itamit daana wàcce alquran lu mot ñaari yoon ci weer wi naka noonu imaam ahmad moom bu weeru koor xesoon a jot dafay ub mbooleem téere yi lu dul alquran ba waxe mu ne hada shahrul quran mu ne lii weeru alquran la kon lenn dootuñ ko ci def lu dul alquran naka noonu imaam malik ibnu anas radiallahu anhu moom daana wax ne laa yufti wala yudarrisu fi ramadana wa yaqulu hada shahrul qurani nee naam bu weeru koor xesoon a ñëw imam malik dootul def benn fatwa dootul jàngale benn téere nee na day wax ne weer wi maanaam weer wi weeru alquran la kon weeru alquran la duñu ci jàng leneen lu dul alquranul karim kon mbokk yi nañu am yitte ci jàng alquran boo mënu la jàng am yitte déglu alquran wala nga dem ci fu ñu koy tafsiree nga toog di ko déglu loolu yépp yiw la alquran nag bu ñu ko waxee ci biir weeru koor waaye am na leneen loo xam ne mu ngi ci biir weeru koor ñu war di ci sonn lu am solo mooy li ñu tuddee as sadaqatu mooy sarax xool nga alquran dafa wax ne fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanu yasiruhu lil yusra maanaam ki nga xam ne mooy joxe alalam boole ko ragal yàlla waaye tamit boole ko gëm boromam subhanahu wa lépp loo xam ni yàlla dafa ko def ci mu waroon na jafe ci moom yàlla dina ko def mu yomb ndax yonent bi sallallahu alayhi euh, xadis bi ñu wax léegi mooy yonent bi ku tabe moo gën a tabe ci mbooleem lu yàlla bind waaye ak tabeem nee na ñu ko doon xam bu weeru ko ñëwee looloo tax saxaabatul kiram ñoom dañ doon njëkkalante ci lépp loo xam ne yiw la boo xam ne yonent bi jàngale na ko alquran jàngale ko jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ku mel ni Omar ibnul Xataab bi ñu déggee sarax ak la ci aju e, xadis boo xam ne Zeyd ibnu Aslam moo ko génnee jëlee ko ci pappam moo wax ne samitu Omar ibnul Xataab radiallahu anhu yaqul amarana rasulullahi an natasaddaqa wa waafaqa dalika maalun indi fa qultu alyawma asbiqu aba bakrin in sabaqtuhu yowman qaala fa jitu bi nisfi maali fa qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa abqayta li ahlik qaala qultu mislahu wa ata abu bakrin bi kulli maa indahu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa abqayta lahum qaala qaala abu bakrin abqaytu lahum allaha wa rasulahu fa qultu laa usaabiquka ila cheyin abadan dañu ne omar ibnul xataab nee na dafa toog benn bés bi yonent bi diglee sarax nee na fekk moom mu am alal bu takku ci moom nee na mu ne tey nag danaa jéem a jiitu Abu Bakar maanaam danaa fexe ba raw ko ci jiw nee na ma indi sama génn àllu alal jox ko yonent bi yonent bi ne ma waaw lii nga bàyyi lii nga bàyyi nii lii nga indi lan nga bàyyil sa njaboot lii nga bàyyi nii lii nga ma indil nii ci alal bu bari ji lan nga bàyyi ak sa njaboot Omar ibnul Xataab ne ko bàyyi naa leen genn wàll ci alal bi ñu toog tuuti abu Aboubacar Siddiq ñëw bi Aboubacar ñëwee joxe alal bu bëree bëree bari ndax booba daje na na alam yépp joxe ko yonent bi ne Aboubacar waaw yow lii nga indi lan nga bàyyee sa njaboot mu ne bàyyi laa ne nag yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ca la Omar wax ne nag man nag jeex na nag dootuma jéem a rawanteeg Aboubacar ci dara kon fastabiqul xayraat beneen bi nga xam ne itam am na solo ci biir weeru koor mooy adduaaw ñaan rawatina nag ci jamono ji nga xam ni jamono la joo xam ne jamono njaaxle la ak jaaxle ci feebar bi nga xam ne moom lañu ñu yàlla nattoo ñépp a ngi saraxee di ñaan kon ñaan dafa am solo lool ndax adduaaw ibadatun ka salaati wa siyaami wal xajji ndax eh, ñaan jàmm yàlla la comme ni julli nekkee jaamu yàlla comme ni koor nekkee jaamu yàlla comme ni aj nekkee jaamu yàlla lu tax mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne adduaahu huwa al ibaada moo wax ne ñaan mooy jaamu yàlla bi mu waxee loolu ba pare ca la jàng aaya ba wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen kon yàlla moo ko digle ni yàlla digle julli digle ko koor digle ko gën eh, azaka ak aj nee na noonu la diglee li ñu tuddee eh, ñaan eh, ñaan nag wa daawatu saaimi mustajabatun li tax ñuy wax ñaan ci koor mu ne ndax ki woor ñaanam dañu koy nangu ni nga xam ni ci sunanu abi ibnu maaja bi isnaadin xasanin min xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaasatun laa turaddu daawatahum nee na ñett ngi nii ñoo xam ne yàlla du delloo seen ñaan maanaam bu ñu naane ñaane rek yàlla nangu ñaan gi ñett ngi nii ñoo xam ne seen ñaan yàlla du ko gantal asaimu ki woor xatta yuftira ba muy dog nit ki fi nga woore ba ba ngay dog loo fi ñaan yàlla mu nangul la ko waaye mbokk yi nañu góorgóorlu ci ñaan yi moo gën seetaan film yu amul njëriñ yi nañu góorgóorlu ci ñaan moo gën jeu amul njëriñ yi loo xam ne du la jëriñ dara nga góorgóorlu ci ñaan sa borom subhaanahu wa taala ci weeru koor boobu mooy bu njëkk bi wal imaamul aadilu ak njiit bu maandu njiit bu maanu moom it lépp mu lu mu ñaan boromam mu nangul ko ko ñaareel bi mooy boobu mooy imaamul adil mooy elimaan wala njiit bu maandu njiit bu maandu lu mu ñaan boroomam yàlla may ko ko wa daawatul mazlumi ak ñaanu ku ñu tooñ yarfauha allahu fawqa algamaami wa yaftahu laha abwaaba alsamaai nee na ki ñu tooñ bu ñaanee borom bi subhaanahu wa taala daf koy yëkkati ca kaw niir ya waaye dafay ubbi buntu asamaan yi yëpp xool nga moytu leen ñaanu ku ñu tooñ ndax ñaanu ku ñu tooñ amul lu dox digganteem ak borom bam ci pour nangu ko kon képp kuy tooñ nit nit kooka dem tëju di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla faj fajal ko naxaram incha allahu yàlla da ko koy nangul ndax hadis bi moo koy firndeel kon ñett yi daal nañ ci bàyyi xel ni lu ñu ñaan yàlla mu nangul leen ko te mooy ki woor ba ba muy dog njiit bu maandu buñ ne al nag du élimaan bi ci jàkk ji rek képp koo xam ne njiit nga rek loo xam loo mën a jiite nga maandu ca nang ko jiitee dañuy wax ne boo ñaanee yàlla nangul la ko beneen bi ci des mooy ku ñu tooñ saa yu ne allahuma yàlla nangul ko ko kon yii nañ ci bàyyi xel bu baax a baax rawatina ci weeru koor wi léegi nag ñu ñëw ci benn point boo xam ne mooy laylatul qadri ñu wax ngeneel li nga xam ne moo ci nekk ngeneelu weeru euh, laylatul qadri mënuñu ko lim ba mu jeex waaye dinañu indi lu ma juróom-ñaari point yoo xam ne mooy teeg wane important su lu laylatul qadri ndax nag bu ñu nee laylatul qadri ci la alquran wàcc boobu benn ngeneel la ci lu laylatul qadri kon laylatul qadri lahu fadailun kathiratun naskuru minha maanaam dafa am ay ngeneel yu bari waaye dinañ ci tul lim rek ay quelque rek yoo xam ni ci ngeneeli laylatul qadri la bokk ngeneel bi nga xam ne moo ci jiitu mooy fiiha unzila al quraanu ci guddi laylatul qadr ci la yàlla wàcce al quraan kon boobu benn la ci ngeneel yi ndax yàlla moo wax ne inna anzalnaahu fi laylatil qadri maanaam wàcc nañ alquran yëpp ci guddi laylatul qadr bu yàlla waxee ne inna gi nag li muy tekki mooy day wone ak màggaayam waaye nag hu gi mooy dellu ci alquran manaam yàlla man maa wàcc alquran ci guddi laylatul qadri boobu mooy bu njëkk bi ci ngeneel yi ñaareelu ngeneel yi ci laylatul qadr hiya xayrun min alfi shahrin